ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kon ñu fas yéene laa beneen sunu biir ci aayaat yu tedd yi nga xam ne waxe sunu boroom la yàlla defoon ñu tàmbaloon nga ci biir koor gi ba jotoon cee am ab chef maanaam daal way daal la ko lañ war a tàmbale tey jii te bëgg gi itam sunu kem kàttan ñu joxe man maanaam dara ci wàllu diglu ak teewlu sunu kem kàttan ndax yàlla mën na bokk jëriñ leeraloon nañ ci njëlbeenu tafsir ba wax ne tafsir daanaka mën ngaa wax ne fi mu toll nii kenn defu nett li lu ñu tafsir la ñu def waaye tafsir moom mooy rek koo xam ne kaamil bii la yor di dimbali ko ay jumtukaay yoo xam ne yàlla def na mu xam ko ci wàllu naxu ci wàllu balaaxa ak xam li mu xam làkk wi ci boppam di baasewu ci loola di tafsir loolu aw xeet la ci tafsir maanaam bokk na ci jumtukaay yi ñuy tafsir waxoon nañ ko ci njëlbeen la mooy jëmmi alquran ci boppam bees na ci firi alquran maanaam tafsirul qurani bil quran am na moo gën a rëy ci martaba yi tafsir yi ndax dañ naan laa ahada aalamu billahi min allah kenn daa gën ta xam yàlla boppam te suñu borom toujours ci waxam yi day tënk fii ab aaya dem feneen leeralaat ko wala mu ba ab baat nekk fii dégg nga maanaam leerut lool mu am feneen foo xam ne moom ko lee def faa leeral loolu am na ku ci def ab tafsir bu mag a mag war naa mat fukk juróom-ñeenti xaaj ku ñu wax Muhammad Rabi Shinqiti ñu koy wax Abwa al Bayan fi tafsir al Quran bil Quran am na itam tafsir bu ñuy wax tafsiru Quran bi sunna kooku moom lañ doon tafsir daanaka ci sunu tafsiru kool ci Ibnu Kasir Ibnu Kasir maanaam aaya bi bu ko jëlee da ci indi ya nga xam ne moo ci nekk ci ay ahadis yu rot ci aaya boobu maanaam bu fekkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci jëmmi aaya boobu noo xam ne ay hadis la yu dëppoo ak aaya bi mu rotal ko su ko rotalee ba mu jeex su gisut hadis saxaaba yi wax ci aaya boobu seenu dégg mu indi ko du sax saxaaba yi jàllee mu indi taabi'oon daw dégg loolu tafsir la ci xeet tafsir am na beneen tafsir boo xam ne moom tafsir la maanaam boo xam ne yaa ngi baasaw rek ci làkk bi ci làkku arab bi kooku ak maanaam am ñeneen ñoo xam ne fi ci fànn arab bi dañ ko ittiwoo lool di ko di ko di ko si lu mel ne kashaf sama xarit moo ko def téere bu mag la taw itam ki nga xam ne moom mooy jàng tafsir mu bàyyi xel ne tafsir ni ma ko waxee léegi ci njëlbeen gi daanaka kenn def li ñu def mooy nett loo xam ne ay borom xam-xam yoo xam ne yàlla def na ñu am seen xam-xam ci fànn gi ñoom ñoo ko tafsir ñu di ko di ko nettaliwaat ngir laa binante ci biir ndax xam nañ ne alquran téere la boo xam ne su fekkee ne nun xamunoon li ci yàlla di wax daanaka duñ ci jëriñ ndax fi mu ne lool feeñ na lool yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon ne li yàlla waxoon ne wa qaala rasulu ya rabbi inna qawmi yattaxadu hada alquran mahjura sama nit ñi dañoo jàppe alquran bi mu nekk mahjur mahjur hijraan boobu borom xam ne topp nañ ko topp ko topp ko topp ko ba daanaka hijraan gi ëpp na fukki anam bokk na ci hijraan googu hijraanu tadabbur maanaam nit dana jàng alquran bi nii waaye du ko seetantal su ko defee jeexit yam waroon a bàyyi ci jëmmam maanaam moo ko jàngut alquran rek ñooyam te xatar la ci jaam boo xam ne si yaa ngi jàng alquran te xamoo dara la ci yàlla di wax su ko defee kooku suñu borom moom aqaama alayka alxujja moom lay moom taxaw na ci sa kaw bu nag léegi nag mu def ba xam yow xam nga li ñu wax wala xamoo li ñu wax soo ko xamee fa leel xamdu soo ko xamul itam boo gisee foo xam ne foofu ñu koy leeralal sa kemtalaal kàttan lañ ci mën a xam nga xam ko ci ak te itam di góorgóorlu sa kem kàttan ndax téere la boo xam ne moom illa bi tax ñu wàcce ko dégg nga ñu ngi gisee ci téere masaalikul jinaan fa innahu subhanahu ma anzala illa li taamala bihi fastaamila moom yàlla wàccewu téere bi lu dul nga jëfe ko jëfe gi ne bala nga ko defee day fekk nga xam ne yow ba nag ñaara bi itam suñu borom njëkk wax jooju moo njëkk wax ne kitaabun anzalnahu ilayka mubarakun waaye li yaddabbaru ayaatihi li yaddabbaru ayaatihi danoo bëgg ngeen settantal aaya settantal ne kenn mënu koo def te xam wala ngay settantal lu mu doon dégg nga di setantal da ngay setantal loo xam kon tey ji ñi ngi tàmbalee ci wa ida laqu di wéy ci ñi nga xam ne fii maanaa maanaa ñooy ñi nga xam ne ay munafiqoon lañ woon ay nafiq lañ woon te bokkoon ci ahlul kitab xam nga nifaq jàng na woon nañ ko ci ginnaaw waxoon ne nifaq ñaari xeet am na ko am na nifaq boo xam ne nifaq amali la am na beneen nifaq boo xam ne nifaq boo xam ne xawli la maanaa maanaa i'tiqaadi la bëgg wax am na xeet nafiq boo xam ne pas-pas la xeet nafiq boo xam ne pas-pas la maanaa da ngay feeñal jullit ñi lu bokkut ak la nga nëbb yow xam ne wóor na la ne fii mu ne maanaam lislaam ji istiwoo ko soxlawoo ko li yàlla wax toppatoo ko waaye nag bëgg nga jàmm te xam ne maanaam jullit ñi ñoo not fi nga nekk soo fi jéemee feeñal genn genn genn bañ ñu rey la léegi nga daal di ànd ak ñoom ca noona di saaboo tafe ñoom masla ak ñoom i daal qul ladina amanu qaalu amanna dégg nañ ko jàngale fale waaye suñ delluwaatee ca ña nga xam ne ñoom ñëpp ay naafeq lañ toog ñi nag dañuy daal di commencé kenn ku ne leeral yoo xam ne nun daal inamaakum inamaa nahnu mustahzi'uun nun daal leen di reetaan rek waaye daanaka istihzaa lañ leen def daal ñëruñu li ñu def loolu mooy ia- mooy mooy nifaaqul i'tiqaadi yi nga xam ne moom pas am beneen nifaaq boo xam ne si nifaaqul xaw fi'li la mooy ay jikko la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa wax ne salaasun man kunna fiihi kaana munaafiqan xaalisan ñett ngi nii yoo xam ne ku mu nekk ci yow naafiq fiir nga maanaam original bu ci ku benn ci yow nekk ci yow nag xam kooku maanaam du la tee mën na laa bañ a tee dem sawara nag moom du kenn duñu la atte naafiq duñu la atte bi yéefar bu dee ku njëkk ci moom dee dee donc dee dem sawara إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدا فيها هي حسبه ولعنه الله ولهم عذاب مقيم كوكو موم موم يفري سانيو بوك بن برام وعد الله المنافقين والمنافقات برام بي نينا ديغنا نيغا خامنا اي نافق يو غور لن ولا اي نافق يو جيين اك كفار يي ني ودي يالا سين برام ñoo ñu mëne dig naar jahannam dégg nga boo gis alquran bari ci lu mu ci wax loolu nag mooy dañoo danse ñoom ñu nekk ay nit ñu danse ñoo xam ne fii faaw ñu leeral leen ban xam bañ xam leen fu ñu taxaw fa julli ñu si taxaw seen diggante ak ñoom Mm, sonal nañu islam ci njëlbeen gi loolu naafiq ñett ñetti mel yooyu mooy koo xam ne ida xaddasa kadab kadab maanaam saa bu waxee saa bu waxee faw da nga banamteku ci biir wax ji xeetu lu dul dëgg bind lay doon nit dana ko def te du ko yëg da ngay fexe ba di taxarri dëgg kunu qawamina bil bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum maanaam kunu qawamin na ngeen taxawe al qist mooy ak maandute ak maandute mooy wax loo xam ne si lu wér la rek dégg nga bu ngeen dee feere itam na ngeen di feere ngir jëmmi yàlla sa teg ko ci ak dëgg donte feere soosu day dal ci sa kaw donte yow loo def la nga reconnaître ko ndax yow boo gën a béy itam borom bi subhanahu wa taala moom mi ngi koy gis te dana ko xam te ëllëg yow ma tawla saraayiru dana fis ne yow li nga waxoon ni wérut mu ne wala wala anfusikum donte day dal seen kaw sooru bu ñëwoon ci alquran bëgg cee gis koo xam ne si loolu daa feereel boppam donte feere sa daa dal ci kawam Kaab ibnu Malik ba mu tardé demut asootu sabu ñëpp dem moom mu nekk ci ay mbiram ba demut bi nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam ñibbisi na am nañu ko wax ne ko tey ngaa dem ci yonent bi alayhi salatu wasalaam nga nga nga nga nga nga lay fa ndax am nañu ko doon def am na ñu doon ñu doon dem fa di fa di fa lay di waat rek di di waat yàlla yu bëree bëri di waat ne maanaam ñu dañoo amoon ngànt dégg nga sa yaxlifuuna lakum li tardaw anhum ah wala avant avant ñu ñibbisi sax la alquran ne bu ngeen ñibbee fii mu ne fay xarit woon na la comme idan xalaqtum ilayhi fii ne bu ngeen ñib bu ngeen wëllu di ko dellu ci ñoom da bu ngeen dem rek fekk ñu leen di waatal ci yàlla naan nangam ak nangam mënu teewoon a dem ngir lan waat gi si jur mooy li tardaw anhum pour ngeen mën a gërëm d'accord ci ne ñoom dañoo amoon gaan waaye fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmi fasiqin xam nga ab yow mën ngaa jàkkaarloo nit mu wax la wax yu jub a jub nga defee ne noona la waaye yàlla mi nga xam ne xam ne ne moom xol yëpp mi ngi jàkkaarloo moom boo gërëmoon kooku itam te du tax mu gërëm fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda anil qawmi fasiqin dégg nga nafiq yi ci wàllu wax lu dul dëgg dañ koo tàmm tàmm tàmm ba nga xam ne day moo tax sax ñuy wut ngiñ ay ngiñ yu bëri def ko muy seen junna ittaxadu ay maanahum junna maanaa junna mooy loo xam ne fii da nga koy def fii ci sa loxo bi buñ dee guerre wala buñ dee xeex buñ la dóoree jeex nga di ko ci baare lu mel ne ab layu la daan doon nga di ko seetaan ci kii loolu mooy ab junna maanaam ñoom au lieu que xam nañ ne lu ñu wax rek gaañuñ leen lu ñu wax rek ñu ne duñ du dëgg moo tax bala ñoo àgg rek daal di gaaw waat ci yàlla bala ñoo wax rek daal di gaaw waat ci yàlla maanaam pour loolu nekk seen défendre mu défendre leen ba duñ leen mën a lor maanaam dañoo tàmm fen yooyu ak waat yi ba tax ëllëg yawmal qiyaama sax bu leen yàlla dekkalee dañuy waatal yàlla yawma yab'athuhumu llaahu jamii'an fa yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum comme niñ leen daan waatale fii ci àddina bu leen yàlla dekkalee fi mu ne noonu la ñuy waatale yàlla defe ne ñoom ni ñu ni ñu mën a naxe nit ñi loolu lañ mën a naxe naxe yàlla dégg nga loolu kon lañ ne leen doog koy waral mooy maanaam ñàkk wax dëgg ñàkk wax dëgg ñàkk wax dëgg dana la indi ci dugal la ci aw aw benn ngi noonu boo xam ne comme nekk ci yow na la wóor ne fi xam naa feq ñi ci yow léegi nag nga lijjanti ba xam nooy fexe ba mu dañ benn safaa gi noonu mooy ida xaddasa kadab maa ngi woon ci aaya bi wala ala anfusikum awil waalidayni sama ñaari waajur am na lu ñu def loo xam ne wóor na ma ne ñoo ko def ñu dikk di ma laaj ndax ñoo ko def bu ma bëggeel jàpp sama diggante sama waajur ak liñ ma yar ak liñ ma def lépp bu mu tax may wax loo xam ne si du dëgg wala ala anfusikum awil waalidayni donte sa ñaari waajur la sax ñoo def loo xam ne si du yoon nga war caa seede wax lay dëgg dégg nga wala sax say jege ñaare yi nga xam ne maanaam am na lu dox sa diggante ñoom ci wàllu deret wala aqrabin bu mu tax nga wax lu dul dëgg donte day koo xam ne ku am xaalis la mu wóor na ne maanaam boo ne nga da nga ko fekk mu am ko mu taxawal naan ko yaa ma yoreel nangam yaa ma yoreel nangam ñu ñu laaj la ndax moo ko yoreel nga bëgg am ci alal joojee tax nga ne moo ko yoreel nangam wala faqir boo xam ne si benn waay da ko taxaw fu amul dara benn waay taxaw ko naan ko jox ma sama xaalis bi jox ma sama xaalis bi nga yërëm faqir bi lool ba tax nga naan ko ñu lay feeral nga naan defu ko dara laa wax ah alquran ne iyakun ganiyan aw faqiran allahu awla bihima ñaar ñooñu noonu ganiyin beeg faqir beeg yem yàllaa leen gën a yell ci ñu waxal ko dëgg maanaam dégg nga wallahu awla bihima fala tattabiul hawa bu leen di topp seen bànneex ndax toujours loolu maanaam seede lu dul dëgg topp sa bànneex dong la fala tattabiul hawa an taadilu an taadilu jooju mooy ngeen bañ a jeeñ an taadilu ngeen bañ a jeeñ wa in talwu aw tuaridu fa inna allaha kaana bima taamuluna xabira mën nga mën ngeen ko def nag moom bu ngeen jéngee mbaa ngeen maanaa wa- wan ginnaaw la doon dëgg teewut suñu borom moom mi nga xam ni ngeen di def te ëllëg daan leen ko leeral kooku benn mel la boo xam ne si ku mu nekk ci yow bay ma nga jëm ko di yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na innal kadiba yahdi ila al fujur benn fen bu ko nit ki defee daanaka maanaam ñàkk a wax dëgg day indi fen yu bari xam nga luñ ci joxe misaal yonent yàlla Yuusuf doomam yi ba ñu jàppee Yuusuf tëj ko tëj ba mokk ñu sànni ko ca biir teen ba ba ñu bisee ba ñu tàmbalee bañ a wax dëgg fen ya dafa bëri lool ci biir wax ja borom a ko tudde fen ñu tuddee ko fen donte ay nit ñu baax lañu woon awalan wa jaa'u ala qamisi wa jaa'u abaahum ishaan yabkun maanaam nit su fekkee ne dafa def dégâts bu rëy ba surtout bu def donga sax ci misaal ci comme ñu misaale su defoon dara lu rëy boo xam ne xam ne ñu ngi koy xaar ci kër gi dafay heure bi mu daan ñëw du ko ñëw day bàyyi ba ba ba crise gimaata mu soog dugg nga xam ne ñoom heure yi ñu daan ñëw ñëwuñu ko dañoo bàyyi ba Aïcha waxtu ngoon ñu soog a ñëw bi ñëwee itam xam nga yab ko di jooy jooy yoo xam ne ñoo gën a xam ne ñu ñuy jooy seen a ngi noonu dara warula ko dul maanaa bëgg a mucc bëgg a mucc dooga leen tax seen wu njëkk waay aja aba Aïcha ne yëppoon xa ñu waxati yeneen waxana si du dëgg yaa abana inna dahabna nastaliqa wa tarakna yusufa inda mataina fa akalahu dhi'b yow sunu bàyyi nun danoo demoon doon rawante rawante ko borom xam-xam yi nee na mën naa am ci sat la woon mën naa am ci tànk loolu alxuraan leerlu ko ñu bàyyi Yuusuf sunu bagage yi pour mu di ko garder comme ni nga xam ne gone toujours bu nekk mag dañ koy toog la ci bagage yi fa akaloo jéeg ci digg lekk ko ñu wax joo xam ne bii moom ñaareel bi nga xam ne dëgg fa akaloo jéeg ah xamoo bu nit bu defee dégâts daanaka lu ci gën a bëri sax boo xoolee kanam gi rek xam ne kii moo ko def moo tax toujours dana wutaal yeneen yum ci xar muur wa ma anta bi mu'minin lana xam naa ne sax doon gëm nag moom waaw wante bi wala kun naa faadiqin loolu lu mu ci maanaam waxal dëgg rek waaye faw faw faw dafa am yu seen ci yow yu wane ne maanaam li nga wax du dëgg wa ma anta bi mu'minin wala kun xool ñu ne wala kun naa faadiqin te li nga wax du dëgg muy ñaa muy ñetteel wajaaw wajaaw ala kamisihi bi damin kadib wëlbati ko simisi bi yusuf bi ak ñu summi ko wëlbati ko ray ab gàtt maanaam deret ja ñu takkal ko ci simisi yusuf bi indil baayam simis bi nag ne ko mi ngi nii maanaam si liggéey ba nga koy lekk gis ngeen ni mu ko def ma axuraan tuddi ko bi damin kadib dégg nga direct sen lañ ca def moo tax yaqub ci xelam mu rëy ne ah mata kaana dibu xaliman xata yakula alxulaama wala yumaziqu sawba ci li moom kañ la lewet bay lekk nit te da ko téere xaw ma woon loolu ci lewataayu til loolu mënta nekk xel nangu ko ndax ñoom toujours toujours ku def ab dégât da ngay juum li ngay wut pour def ko ay lay lay lay da nga koy juum maanaam ndax ñoom fi mu ne xam nañ ne seen xel nekkul ci loolu sax waaye xam nañ ne lii ab simis boo xam ne fii dara ko tegoo ci ñu naan maanaam si ligaa ko lekk loolu xel nangu ko xel lim nangu mooy bu ak sil dee lekk nit maanaam fattiwàle yére lu bon bon yow ala waaye boo bëggee lal ay lal ay plan ngir bëgg a mucc da ngay indi ay wax yu lu muy bëri bëri dégg nga waaye nag ñu xam ne ñooñu ay nit bu baax lañu woon waaye dañoo mucc ci juum dégg nga dañoo mucc ci ci juum dara warulu ko lu dul ñàkk bañ a wax dëgg gis ngeen lim leen indil ñu wax dëgg itam lim indil Kaab ibnu Maalik indil na Kaab ibnu Maalik ñetti nit ñoo xam ne si ñoom lu bon lu metti metti metti ñu ne ñoom duñ sax lu metti metti Kaab ibnu Maalik nee na maa gën a xam ne bu ma ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci hadiis bi jàng nañ maa gën a xam ne bu ma ñëwee seen salaam kenn gënuma neexu làmmiñ mën naa faa wax loo xam ne si dana d'accord ba gërëm ma waaye yàlla mbir yi ba muy tuut rek alxuraan wàcc càccat sama mbir moo tax nanguwumaa dem ñeent salaatu salaam bokk na ca benn bis boo xam daa wax ne ñett ñooñu bu kenn waxte ñoom ñu nekk ci biir dëkk bi man ñeent fukki kenn du wax ñoom ak taabu maa mu ci gënoon a dëgër su ma saan ñëw ci jàkka ji ñeent salaam bu koy seen rek dem du mooy loolu nag loolu ndax daanaka am na sax benn buur boo xam ne yónnee woon na ko Abdoulaye tax ne ko sa yonante bi dégg naa dalaa bàyyi mën ngaa ñëw ñëw si ñu pat la mu laaj lépp nekk dëgg rek ba benn bis alquran wàcc ne wa ala thalathati alladina xullifu xata ida daqat alayhim al ard bima raxubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dannu an la malja min allahi illa ilayh wa taaba alayhim liyatubu inna allaha watawaba rahim waaye xoolal ya ayuha alladina amanu taqullah wa kunu maa sadiqin alladina amanu taqullah wa kunu maa sadiqin nga xam ne maanaam moom dëgg moo ko dimbale foofu bu fekkoon ne fenn rek la yàlla wax fee ne ñooñu bu ngeen ñibbee fa yaxlifuna lakum li tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda an ilqawmi fasiqin loolaa fa yar maanaam dégg kon ida xadada kada wa ida wa ida wa ida tumina xaan saa boo ko wóoloo ci dara mu war la dégg nga saa boo ko wóoloo ci dara dana la ca war xiyaana nag yonent bi alayhi salaatu salaam neen saa bu ñu gisee mu bari ci jamono xam leen ne bis penc moom ma ngi waaj a tax dégg nga idaa budiyaatil amaana fantasiri saa te amaana lu rëy la fi mu ne maanaam liggéeykat yi yi yëpp mas nañ ci xulful waad ñëpp ci mas fi mu ne maanaam benn benn koy liggéey la ne ko bis sàngam mu ñëw ci bis booba ca même waxtu ba loolu moom daanaka julli ñi fi mu ne nañ ko manqué ba ci sax ak conférence tey jii boo ko doon organisé wax ne maanaam cinq heures na ñëpp ñëw nga xam ne loolu nga bind ci kayit ya bu doo ci gis ci àddi cinq heures boo ko farfarloo yow tam ngir ñu jéem a bañ bañ a xulful waad ba dem ci waxtu woowu itam ba dee doo fekkee muy loo xam ne si jàngoro la yoo xam ne bu nekkutoon jàngoro julli ay min tàbbi na leen maanaam kon su fam naa fexe noonu beneen bi mooy wa ida fa wa ida xaasama fa fajax fu mu doon xuloo yow balaa wax ja àgg mu saaga la ba mu wax la wax ju ñaaw a ñaaw te bon waaw kooku itam melo la waxane fii maanaam melo naafeq la léegi ñett yooyu yëpp yan cel moso su mu nekk ci yow kon même ba benn ci jikkoy naafeq mi ngi ci yow maanaam benn ci jikkoy naafeq mi ngi ci yow ma tax yonente bi alayhi salaatu salaam dañ ko laajee ne ndax ndax ab jullit dinañ yaaru mu ne waaw ñu ne ko am jullit ndax dana fen mu ne kan jullit inna mu'mina laa yaksib lu ne nag jullit mën naa faj jullit mën naa njaalo yàlla jeg waay waay du fen islam moom nee na jullit du fen kon loolu maanaam mooy maanaam nifaaq bi ma la wax mooy amal yi kooku aw meloon rek bu nekkee ci yow da nga jéem a lijjanti sa kem kàttan pour mu dañ dégg nga sa kem kàttan mu dañ loolu mën na fexe ba dañ aaya baa ngi tàmbalee ci ñi suñ borom di tudd maanaam munafiqu munafiqoon yi nga xam ne ci ahlul kitab lañ bokk ndax naa fexe yéen la ñu doon wax bokk sa gi yi ci ahlul kitab lañ wa ida laqu saa boo xamee ne tase nañoo ak alladina ña nga xam ne amanu gëm nañu yàlla ci yéen qaalu wax nañu ñoom it ne aman naa gëm nañu maanaam faa bu ñu tafee ak ñi gëm yàlla ci seen bi ci yéen la ñuy wax ci seenu làmmiñ mooy ñun tam gëm nañu feeñalal leen ak ngëm yàlla ci seenu làmmiñ waaye loola nekkul ci seeni xol yaquluna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim alquran wax na ko ci beneen barab dañuy wax ci seen làmmiñ loo xam nekkul ci seeni xol ta kat faa boo xamee ne maanaam ñoom donga kenn raxu ci seen biir wa ida xalaa saa boo xamee ne wéet na wala dellu na rajaa maanaam baatu xalaa dana firi rajaa dellu na wala dana firi tamit in farafa wal bari wa ida xalaas soo xamee ne wéet la baaduhum ila baadin ñenn fekk ña ca def ñoom kenn ñu wóor na leen di maanaam kenn raxu seen biir ñoom rek la loolu na bàyyil xel ne maa ngi wax munaafiqu ahli kitaab yi naafiq yi nga xam ne ci ahli kitaab rek suñ toogee ñoom seen biir ba nga xam ne si maanaam kenn nekku fa ñoom rek ñoom rek fa nekk yàlla bi nga xam ne moom ma nga fa moo nuy nett li ñun way laa noonu duñ ko mën a xam lu suñu borom nee na la ñuy wax mooy da nga leen dégg xaalu ñu naan atuhaddisuunahum waaw pourquoi ngeen di leen nett li ñoom jullit ñi bi ma fataha allahu aleykum li nga xam ne moom la yàlla ubbi li leen yàlla ubbi mooy li leen yàlla feeñalal ci tawraat li nga xam ne moom la leen yàlla feeñalal ci tawraat bi ma fataha allahu aleykum bi ma fataha allahu aleykum mooy bi ma arrafakum fi tawraati min naati muhammad ndax yàlla ci tawraat melal na fi yonente bi alayhi salatu wasalam melal woo xam ne fii saa bu ñëwee rek war nañoo xam ne kii mooy yonente bi léegi nag lu tax ngeen dem ci jullit ñi naan leen nun gëm nañ yàlla yéen a ngi ci dëgg mel na yéen da ngeen di maanaa di leen nett li li nga xam ne moo nekk ci biir tawraat bi te tawraat dafa nekk mooy maanaa wax ne yonent bi alayhi salatu wasalam ay meloom yëpp ma ngi ci biir tawraat dégg nga ñu yeddante waat seen biir mais noonu loolu dañoo def njuumte lu tax yéen ñi ngeen di dem ci julli ñi naan leen gëm na ak di leen wane seen yéene ji dëgg la te loolu kat leen dong la leen indal mooy li tuxaajukum ngir ñu mën a dagg sante ak yéen dégg nga bii ci sababu loolu indi rabbikum fa seen borom ndax ëllëg yowmal xiyaam moom léegi lay wa day daal di leer ndax tey ji mën nga bañ a reconnaître jullit ñi sax wax ne ñoom nekkuñu ci dara waaye jàkkaar la ak ñoom ne leen yéen a ngi ci dara yéen a ngi ci dëgg ba noppi yéen su ngeen wéetaatee dégg nga wane ne maanaam jullit ñi nekkuñ ci dara su boobaa ëllëg yowmal xiyaam loola lu muy lu muy jur mooy day jur mu nekk aw lay ci seen kaw waaye du nekk seenu lay ndax yéen yéen a wax ne jullit ñi ngi ci dëgg ndax yéen yéen a wax ne jullit ñi ngi ci dëgg kon loolu aw lay la ci seen kaw ñu ko reconnaître avant kenn di ko reconnaître loola kon moom la ñuy aayante seen biir loolu daal gis nañ ne ñu ngi koy def waaye du jarul mu ne ma tax ne afala taaqiloon xanaa duñu am xel moo xam ne danañ ci mën a bàyyee di leeral loo xam ne xujja aleykum lay doon maanaam aw lay lay doon ci seen kaw ëllëg ah loolu la ñuy wax de waaye awala yaalamuuna xanaa xamuñ ne anna allaha borom bi subhanahu wa taala yaalamu xam na sawfu taxfilu maadi jëfandikoo fiilu maadi muy wane ne lu daa xamoon lu jàlloon waaye ba mudaari moom li muy teg tamit alxar wal istiqbal xanaa xamuñu ne yàlla yaalamu dana xam maa maa yusirruuna li ñuy nëbb wa maa yulinuuna ak li nga xam ne moom la ñuy feeñal li nga xam ne moom la ñu fas ci seen i xol doonte dañ koo nëbb ci seen biir ba feeñal ko itam defe ne maanaam nëbb na teewut suñu borom subhanahu wa taala xam na li ñuy feeñal xam na li ñuy nëbb te ëllëg yawmal qiyaama itam bis boobu nga xam ne ci la yàlla di wuñu secret yëpp lépp ciy leer maanaam dégg nga awalaa yaalamuuna anna allaha yaalamu ma yusirruuna wa ma yulinuun xanaa danoo xamul ne yàlla xam na li ñuy nëbb ñoom jullit ñi ñoom ñoom ñoom munaafiq ahli kitaab yi wa ma yulinuun ak li ñuy feeñal ndax suñu borom subhanahu wa taala moom dafa amul comme ni nit nit mel fii mu ne nun suñu nopp yi am na foo xam ne fii bu fa ab dégguwaayam am na fu mu yem wa illaa suñu déggee loo xam ne passé na suñu dégg rek loolu benn mu dugg ci xaqul aada dégg nga mu dee ci nit koo xam ne ci yàlla la masalan loolu mën naa nekk wala itam mën naa nekk maanaam lu la ji la xeetu jinne faral indil la lépp kasaalika dana mën a nekk dégg nga daa boo xam ne nit ki maanaam ab déggam lam ca dégg lam dégg fii maanaam doomu aadama yi dégguloo ko dama ko dégg ci barab bu sori loolu wala mu suñu borom kashful ko loo xam ne ci lu mu jàkkaar loolu la ci loo xam ne lu sori la dégg nga loolu dana mën naa am taarix indi na ko indi indi na ci ay ay ay ay am si la waaye loolu du lu ñuy baasoo ci lislaam ndax sharia moom gannaaw yàlla xam na ko dara ba noppi moom moo nekk di atte waaye dara du mën a bàyyi ko ci bitti di ko di wàcc masalan ñu ne kii daa gis dara ci géntam moo tax kon léegi lii du ko def te loola di lu sa sharia santaane da ko war a def rek ndax day mel ne kon loola mu gént moo ñëw bëgg a atte sharia te sharia dafay nekkoon nekk xaakim waaye léegi sa maxkuman kenn du ko atte moo tax borom xam ne di wax ne boo géntoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne la sax maanaam rikaas boobu nga xam ne moom nga nar a for bul ci génne ab xamus boo ko foree génne ci xamus ndax sariya am bi génn mënu ko jé mënu mënu mënu ko teg dégg nga sariya amul yàlla la bàyyi ko ma jaal naaka ala sariya min amri fattabiha li ma leen bëgg a misaal mooy yàlla ci boppam maanaam amut lu ab déggam weesu wala am loo xam ne da koy gën a dégg ak loo xam ne ci maanaam dégg ga day soosi moom wa asirru qawlakum aw ijharu bi seen wax yi bu leen neexee ngeen yaru ko bu leen neexee ngeen béral béral ndax innahu alimun bi daati sudur sawaa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bi ka béral ci yéen ay wax ak ka ko teyalu dong ñoo yem innahu yaalamu sirra wa axfa la gën a nëbbu sa kera sax suñu borom xam na ko moo tax ñuy misaal ne nit dana maanaam nit moom ak déggam mi ngi aju ci kem tulaay kasaratul masmuwaat yi ñi ñuy dégg balu balu balu fetal bu ñu tell ni nga koy déggee du bokk ak leneen loo xam ne danga naan may ma ma tudd ma ma kii ko ma ñëw dégg ko nga xam ne yaa ngi mel ne kuy wutaat geneen dégg gu gën a sew pour mën cee dégg loolu maanaam wala giléen gi ne ñëmmu ci sa kanam jàkkaar ni nga koy gisee bu ko teg maanaam wëñ gi nga xam ne moom nga bëgg a nas ci bët ba la ko sol ñaari gis yooyu bokk ne faaw kii nga xool beneen gisin bu gën a maanaam sew borom bi ne yooyu da ko amul sawaa antum man asaral xawla wa man jaara bi yàlla amul loolu moo tax lépp loo xam ne si yéen a ngi koy nëbb rek na leen wóor ne àlla yomna ko am dana leer te foofu kat maanaam bàyyi ba nga leeral sa mbir si rek waaw nit dana la fa bett loolu yàlla ci àll sol wa minhum am na ci ñoom ahlul kitab ñoo xam ne ummiyuun lañ ummiyu um al ummiyu mooy koo xam ne dañ fi askane la ndeyam buñ ko waxee ku dul yonente bi alayhi salatu wasalaam nag mu nekk aw ŋaañi ci moom ndax yonente bi dong ma nekk ummi yi boo xam ne si jàngut dara dara dara gën a xam yëpp jàngut dara dara dara gën a xam ñëpp aw toon sax mënu ko bind teewul gën a xam ñëpp kooku bi ne ko ummi yi aw tàgg la ci moom dégg nga ahlul kitaab nag da ci am ñoo xam ne ay ummi yoon lañ ñoom duñ bor duñu borom xam-xam te loolu foo fekk yàlla noonu lay doxale day am ñoo xam ne ay borom xam-xam lay doon am ñoo xam ne duñ ne duñ nekk ay borom xam-xam su ko defee ñi nga xam ne ay borom xam-xam bu ñu ragalul yàlla toujours la ñuy wax ummi yoon yi moom duñ xam dara moo tax alquran nag ñoom ci seen biir am na ci ñoo xam ne ay ummi yoon lañ laa yaalamuuna alkitaaba xamuñu tawraat illa amaniya amuñu lu dul amani amani nag bul ko firee am na ci ay firi yu ci nekk waaye bi ci gën a wóor mooy jàng jàng illa amaane lu dul jàng maanaam ñoon daal tawraat amuñ ci lu dul timbari ko jàng comme li gën a bëri ci ñun suñu jullit ñi amuñ ci alxuraan lu dul timbi jàng nii rek waaye li ci yàlla yor det comme ci dara dégg nga moo tax ñu naan fa yansaxu fa yansaxu allahu ma fi umniyatihi lu ko jiitu nanga fi umniyatihi fa yulqi shay illa wa ma arsalna min nabiyin wa illa ida tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi illa ida tamanna tamanna mooy ida qaraa su jàngee alqa seytaane fi umniyati seytaane di am lu muy dugal ci jën jàng am ni maanaam amaaniya gi ci foofu lañ ko dugal am na itam teewul borom téere yoo xam ne su mel ne maanaam jalaale yi ñu xam ne ay mufradaat da ko itteel moom nee na mooy ay akasib mooy ay fen yoo xam ne si seen kilifa yi ñoo leen ko wax te ñoom ñoo leen koy wax ñu di ko gëm mais kilifa yi koy fen itam ñoo ko def illa amaani kon am na ci ahlul kitaab ñoo xam ne ay ummiyoon lañ xamuñu tawraat lu dul amaani amaani kon nga firee ko baat boobu mooy tilaawa jàng doo mën a jàng dégg nga kon boo xoolee ci aay yi ñu jàllagoon su borom tudd na ci seen i borom yi xam-xam tudd na ci itam seen i awaam mooy ñi nga xam ne amuñu xam-xam ci ñoom tudd na ci itam seen i naafeq tudd na ci itam ñi nga xam ne nekkuñu ay naafeq ci ñoom ndax ñu nekkul ay naafeq ci ñoom mooy ñi naan leen atu xaddisuuna bi ma fataha allahu aleykum li yuxaajjukum bihi inda rabbikum ñooñu nekkuñu ay naafeq ci ñoom bu dee borom xam-xam yi nekk ci ñoom itam am na ci ñoo xam ne si dañoo réer ñi nga xam ne ay awaam lañu itam nanguñoo wut fu ñuy xam ne waaye dañuy taqlid rek maanaam day fekk benn waaye boo xam ne daal borom xam-xam la nee na waaye jubut su ko defee la muy wax lépp ak la muy jëf lépp la di ca rey yow te di ko tax lépp mooy laa ya'lamuuna al-kitaabi illaa amaani wa in hum déet ñoom in jaaju day dàq wa in hum déet ñoom illaa yazunnuuna lu dul ñu di way jort waxoon nañ la ci ginnaaw ne la illaa ada amana al al istisna baada naf yi dul xaq illaa jooju istisna la dafa ñëw ci ginnaaw indi nga xam ne ak dàq la dégg nga kon day wane ne ñoom maanaam defuñ amuñu ci tawraat lu dul ay njort rek waaw dañuy njort rek suñu borom subhanahu wa taala ne fa waylun mbugal mu metti te tar wax nañ ne aw fur la wu nekk sawara lilladina ñeel na ña nga xam ne yaktubuuna dañuy bind alkitaaba tawraat bi aydihim ci seen i loxo ñi nga xam ne dañuy bind tawraat ci seen i loxo waaye ba alquran ne yaktubuuna lañ xamoon ne kitaaba kay moom ñum dugaa bëgg def loxo la kon bu ñu indiwaatee bi aydihim taw ci rek la dégg nga mi ngi mel ne ko naan yakumuuna bi arjulihim dañuy taxaw seen i tànk xiyaam kay bu xasee am am na tànk koy def kon yaktubuuna alkitaaba ña ngay bind tawraat bi aydihim seen i loxo maanaam di ci dugal yéen ci bëgg a dugal yéen ci bëgg a génne ñu génne ko ci ya nga xam ne arrangé wul daal yi nga xam ne bi maanaam bu ñu ko waxee di leen arrangé ñoom seen ko projet dox ñu far la nga xam ne si bu ñu ko waxee seen projet dox ñu bind kon ñu ngay taxari tawraat su ma topp yaquluuna bu loola jàllee bu ñu taxari baagal su ma yaquluuna topp ñu ne haada lii nag ñu indi laa moo bàyyi ko fi yàlla ah gannaaw ñi ñuy wax laay ummiyuun lañ laa yaalamuuna alkitaaba illa amaani wa inhum illa yaxdanuun boo ne leen haada min indi laa jógam su fekkoon ay jàngkat lañ yoo xam ne boo ne leen lii laa ko wax ñoom ñu- seen làkk làkk bi ni ñu ko xamee duñ nangu waaye comme que ay ummiyuun ay ummiyuun lañ soo ne leen hada min indillah ñu nangu ko ñee leen si jublu li yaftaru pour ñu mën a wekkeeku bi ci moom samanan qalilan njëg gu néew ndax addina ak li ci biir boo ko amoon ëllëgee mën a xiyaam itam maanaam la nga fa nar a am ci mbugal soo moomoon addina ak addina ak li ci biir da nga ko fa nangoo joxe ngir mucc mbugal inna alladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jamian wa mithluhu maahu labtagaw waaw kon addina ak li ci biir lépp buñ ko comparé ak alaxira saman qalil la ñoom li ci bëgg a am ci am poñet muy bàyyi ko ca ñooña di dugg seen poos loolu lañ bëgg a wat te li nga xam ne moo di dëggu yàlla yi li yaftaru ngir ñu mën a weccee ko ndax shira moom mooy xiwal rek wax na ko jële ci dara samanan qalilan njëg goo xam ne bu néew a néew lay doon kon hada min indillah loolu keneen yàlla la feeñal ak neen ba noppi nëbbu ak dëgg li yaftaru bii samanan qalil wax naa ne addina ak li ci biir comme tàmbalee ba fa mu yem njëg gu néew la ci buñ ko comparé ak loolu jàmm bi waroon a am alaxira su waxoon ak dëgg dégg nga xam ne ñoom léegi seen neen yooyu ñuy bind moom ak fiir la boo xam ne ci la ñuy mën a amee li nekk ci loxoy nit ñi wa illa buñ leen leelee dëgg kenn mën a day jaam yàlla nit ñi boo Dakar dañoo nee na gis nga gis sëñ ñu ne xanaa nga ne leen alquran la ko wax mooy képp ku ba ñëw sa jëf la la yàlla di yàgg fu mat wa faa kullu nafsin maa kasabat wóorul laa borom bakkan bu ne la nga doon tàggu ci ne borom bi ne dama la ko jox ba mat sëkk dama la ko jox borom bi wax ne ëllëg yowmal xiyaam bu ngeen fa ñëwee kenn ku ne maanaa doo mën a am loo jël ci sa wàllu bopp di ko jox kenn la am yaay nekk ba ak xarit am ko wa qul qul li ibaadiya alladina aamanu neel sama jaam ñi gëm yàlla yuqimu sala ñuy taxawal jub wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan li ma leen jot a wërsëgal ni ci dépense ci sirr ak ci alaaniya min qabli an ya'tiya yawmun laa bay'un fiihi wa laa xulaal na nga loolu njëkk nit di ñëw boo xam ne njaay amu fa ak xilaal ak xaritoo boo xam ne si maanaam tegul ci ak dëgg nekk al axillaa ba'duhum yawma idin al axillaa ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqiin Allah ñëpp ñu xaritoo woon fii tegul ci ak dëgg ay noonu la ñu doon taxee dégg nga ñu ne noonu tey ñu dafa doon leeral doomu aadama day mujj kenn ku ne ci ci ci bopp xam ne ëllëg yow nag yaa moom bay ba nga jéem a jëf te su boobaa kon dara doo ko mën a am ci ñoom loola ñoom bañ ko xamee tax ñuy créé yoo xam ne bi maanaam ci tawraat ngay doon mu génne ko ci tawraat soppi ko di wax leneen lu bokkut ak la yàlla mën a génn naan xaaral ñu indi la ak wala wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab min tahsabuhu min al-kitab wa huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al-kadhib wa hum ya'lamun ñoo ko tey ñu yaquluna ala allahi al-kadhib wa hum ya'lamun am na ci seen biir kuréel boo xam ne bi yaluna alsinatahum bil kitab taxit tawraat rek la ci nekk pour yéen yéen yéen ñëwul dara tahsabuhu min al-kitab bu ngeen jël loola ci tawraat boobu te alquran nee na wa ma huwa min al-kitab لكن يوم نحن يقولون هو من عند الله يلا غيره فقعد الدقة وهو هو من عند الله فيقولون على الله كذب وهم يعلمون فانتهوا من سلكة ببين مثل يجان برهم ولن ترى القرآن الله قد واجد كذب له معنا مو نجي توصل تنو مو خم خمين وأطعم وخم نسان وكمين مو خم نكي دجال نكي وإلا هي تنتون نجي نك نك الأميون ممكن نك مو كسر ولا على جنوبها ما نكسر لي مو كلا يوصل القرآن يقول لن تذكر لهم يعني مما كتبت كما يحمل دونك بالأيدي سنة لقنا حتى تكلم ويقول لهم بما يسمون لن تنقل موكس نيري تنتذكر يعني لن تعالوا تيجي أدري حاجة تنتذكر maanaam jërëm xam-xam dégg nga kon suñu borom subhanahu wa taala nañu la nga xam ne yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'ihi dañuy xool alquran di dagg ne maanaam ñu la jëlee ñu daal di koy taxriif alquran kenn mën ko jaax du ma ko jëlee daal ndax kenn mën ko ci la sax kenn mën ko jëlee kenn xamu ko loolu yàlla demee sutura ndax inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'aafidun tadli nga tadli maanaam képp daan balaaga ak xam inna li nga xam ne inna na inna xafa tadli nahnu nazzalna nazzala boobu nag ñu anzala nazzala bika نحن نذكر لا خبر جملة اسمية من الكتاب وإنا مؤكدة فيه لو هو لحافظون لا جل خبر ولا استخبر جدا كذلك كذلك لو ما أنا أصلا بيس لا درجة ولا شيء يمكن يصب في الدرس في ريان من المحل هذا جواب من الجواب حتى لا يدري هو قبله كما استخدمه في من كتاب الله ومن يقول استشفاء من يقول يفكر سمه يفكر في يوم سمه يلا يتبع يلا يوم سمه يلا يتبع يتبع يتبع يتبع وإلا أنه مديني أكثر مديني أفضل أن جنة ملكي جنة من المرمى
ñu xam yàlla gi lay def ñu xam yàlla gi lay def. yàlla suñu borom nag mooy li nga xam ne ñoo jéem a jàng ba xam xalaat waaye ñoo baaxulee ci jàng ko noonu. loolu nag nee na huwa mutanaawilun liman tasarraka tadabbur al-Qur'an wa lam ya'lam illa ijlal tilawati tawassul. ndax dara jàpp.
million yooyu wax ne ñoom xamuñu tawraat lijjanti wuñ ba xam tawraat ci ay amaan yi dong lañ ko teg mooy maanaam yam ca jàng ga rek loolu itam làmb na képp koo xam ne alquran ji yéemoo settantal li ci suñu borom subhanahu wa taala di wax ba mën koo xam ba mën koo jëfe maanaam kadaalika itam dana jëlaale képp koo xam ne maanaam da ngay bind ci sa loxo loo xam ne daa wuuteeg li yàlla subhanahu wa taala jàngale pour mën cee am dundub àddina képp moo xam ne ngaa bindub téere di jàngale ne maanaam nuyu jigéen ci boppam mën naa nekk dégg nga ngir téere ba tasaaroo ba nga mën caa am ab pañal muy ñëw ci yow te mu wóor na ne wóoral yàlla ne maanaa ku ku gumba sax boo ko yeewoon ci umal islam yi mu wax ne loolu dëgg na ndax suñu borom subhanahu wa taala du nu mën a wax ne bu leen xool ba noppi ne nu jox leen ndax kon mu taklif nu lu nu mënu nit ki ne ko jox ko loxo bi waaye bul ko xool loolu gaa maanaa taklif maa laa yu faax la dégg nga te ba nga xamee ne alquran dafa wax ne sa ñaari waajur fala taqul lahuma uffin bu leen wax ñoom ñaar baatu uffin kenn mënu cee baasoo kon ne mën naa leen a dóor ndax uffin dong lañ aaye kala aaye la gën a tuuti aaye na la la gën a kawe loolu ñu tudde mafhumul muxaalafa ci wàllu usul mafhumul muxaalafa dégg nga mooy jël atte bi nga xam ne tudduñu ko jox ko atte bi liñ tudd ci min baa bi awlaa mu gën a yell fa da caa gën a yell gaa ndax gannaaw baatu uffin maanaam liñ koy naqaree tax ñu ne la bul ko wax kon dóor moom waxi na ko kon bu nu aayee xool moom mi nga xam ne benn jumtukaay bu woyof la dégg nga kon ñu joxe loxo suñu loxo yi ñu joxe ko ba ca yëg bànneex loolu maanaam moo gën a yàlla sax la le ñu ay loolu dafa bu wafa yi ñu ñu dugal rek la la tëj kon képp koo xam ne fii tam yaa ngay bind téere boo xam ne ci sa loxo dañ ciy wuuteeg li nekk ci alquranul karim da nga dugg foofu yi bu la yàlla jégalu mën a tuwal batiku naan lii ci yàlla la bàyyi ko dégg nga masalan lii mooy diine lii mooy sharia sharia nii la ko waxee wala lii moom la alquran di junj wala sunna lii lay junj wala salaf ñu baax ñi fi newoon wala ay ima yi nii lañ ko nii lañ ko daan dunde maanaam ci loo xam ne si maanaam aramte ko yëpp umur yooyu yëpp kasira jiddan fi ahli ahwa ñi nga xam ne si ay toppkat yi bànneex lañ bari na ci ñoom lool lool lool lool lool firi firi alquran ci nu leen neexee wa qaalu wax nañu ñoom ñan ñoom yahud yi day nee nañ lan tamassana du nu laal annaara sawara illa ayyaama xanaa ay bis maaduda yu ñu lim ñoo ko wax de yahudi suñu borom nee na ña nga toog naan jëfandikoo lan nag ba jàpp seen jàmbur lan nga xam ne lu dàq duñu war nii nga nun day sawara duñu laal moom xamuñ ñan waaye nun nun sawara duñu laal bu nu mënta ñàkk a laal itam xanaa ay yaaman maaduda mooy fan yañ doon jaamu xërëm ba wañ doon jaamu ijlu wa rek xam ñàkk nañ ko ci ginnaaw fan yooyu nga xam ne moom lañ doon jaamu ijlu wa daal dégg nga bu nu mënta ñàkk a laal itam ca la ñuy laal ab jaam na def li ko yàlla digal dégg nga moo gën muy garanteel boppam lu mu xamut ndax suba sax mënoo jekki-jekki di wax ne maanaam suba moom du ma dem fenn waaw suba du ma dem fenn loolu ab jaam sax suñu ko waxoo waa adri nafsun maa badat si bu xadan xadan bi gën a jege maanaam waxuma la da ca topp waaye xadan laa wax ndax ne moo la gën a jege lan cay fàggu ëllëg xamoo ko te alquran dafa jëfandikoo an nakira fi siyaqi nafi mooy benn bakkan nag wa ma tadri nafsun nafsun dafa ñëw nekk nakira joo xam ne mi ngi ñëw ci ginnaaw ak dàq loolu saa boo ko gisee ci làkku arab xamal ne li bi jëriñ mooy umum fala tad'u ma allahi ahada wala tushriku bihi shay'a ila axiri fala taj'alu lillahi andada ila axiri noonu la ko yàlla jëfandikoo maanaam kon ñoom nee nañ sawara ña ngay sellal te loolu mooy tasfiya sa bopp te faratoo ko te alquran ñeewoon nañu fala tuzakku anfusakum bu leen di tëskee seen bopp maanaam ndax yàlla ki ci ragal yàlla moo ko gën a xam huwa aalamu bi man ittaqa moo tax nit nit nii nga di ko seeral ak mbaax nii ah xanaa ca jumtukaay ya nga gis ca bitti rek waaye wuuru dara wuuru dara wala tuzakku anfusakum huwa aalamu bi man ittaqa ñoom ñooñu da ngay tëskee seen bopp nee na ñoom sawara du leen daal xanaa fan yu néew yoo xam ne mënees na koo lim ci ay baaraam kon ñoom boole nañ maanaam diggante ñàkk kersa ak itam am kóolute ci diggante seen mbugalu borom ndax falaa yaamanu makra allahi illa al qawmu alxaasirun pexem yàlla moom maanaam nit ñi perte rek koy wóolu suñ la joxee misaal ci maanaam yonente yàlla yi da ngay gis ni ñu ragale woon yàlla donte yàlla am na lu mu leen garanteer itam du tee maanaam ñu ñu tiit yonente yàlla ibrahima bu ñu neexee ñu ñëw ci moom yonente yàlla ibrahima yàlla waxoon ne affaire itam la wa taxada allahu ibrahima xalila téewut ma nga naan yow ma yàlla maa ngi lay ñaan wala tuxzini yow ma yubaasun yàlla boo ma gàcceel bis bu ñuy dekkal jàmm xaqaraa da ko def yàlla ah kay waaye wóolul yàlla wala tuxzini yawma yub'athun ñaareel ba suñ borom waxoon na ne fatlikul iz jaa rabbahu bi qalbin salimin ba Ibrahima ñëwalee borom indaale xol bu mucc te suñ borom wax ne ëllëg yawmal qiyaam diglu li may wax bu baax suñ borom nee na fatlikul ba Ibrahima ñëwalee boromam bi qalbin salim iz jaa rabbahu bi qalbin salim dellu waxaat moom yàlla ne yawmal qiyaam lenn moo fa mën a jëriñ mooy ab jaam mooy ku fa ñëw te indaale qalbun salim kon day mel Ibrahima loola moom yàlla def na am na ko waaye teewut lee mu ngi ko sufalee ci loolu bi suñ borom subhanahu ne yawma laa yanfa'u maalun walaa banuuna illaa man atallaa bi qalbin salim dégg nga ñaan gi ñaan gi mu ñaan moo jiitu loolu tax dañu wala tuxzini yawma yub'athun door wax ne yawma laa yanfa'u maalun walaa banuuna illaa man atallaa bi qalbin salim te wóoruñu ne alquran nee na bokk na ci borom xol xol yu mucc loolu mooy ñàkk wóolu yàlla yonent yàlla yusuf si ko yàlla jaarale lépp teewul ma ngay ñaan naan ko tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin yàlla nag ma faat te jamono bi nga may faat xaala kaw nii musliman ma dib jullit wóolu ko wóolu wóolu wut sax ba xam bu ñu faatu dana génn ci iman wala du génn ci iman tawaffani musliman xaala wa alhiqni bi salihin noonu la nit yàlla yi seen diggante ak seen borom ñàkk wóolu lan mooy xew ëllëg ndax yàlla ay mbiram dafa ruqeloo suñu borom laaj leen ñaari laaj gannaaw nit daa jekki ba mu neex ko lekk ba regg maanaam amul wenn lay ne sawara du du lakk yàlla laaj leen ñaari laaj xul neel yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam attaxattum ndax da ngeen a jàpp ahdan kóllëre gu dëgër seen diggante ak seen borom ci ne du ngeen dugg sawara inda allah ndax da ngeen da dem ba fa yàlla ngeen am fa kóllëre gu dëgër suñu borom bind ne yahud yi moom duñ dugg ay du- duñ dugg sawara ah loolu de bu amee moom fa lan yuxalifa allahu ahadahu yàlla de moom xama kan waaye moom ab kóllëreem du ko wutal waaye daawu moom wax na loo xam ne lu dëggu la ndax moom yàlla moom inna allah laa yuxliful miaad su fekkoon ne lee am na yàlla laa yuxliful miaad waaye nag lee daa amul far wala nga laaj leen am wala taquluuna da ngeen di waxal ala allahi ma la taalamuuna lu ngeen xamul wala da ngeen di fenal yàlla maanaam da ngeen di wax lu ngeen xamul loolu la ñuy tuddee asabru wa taqsim ci usul asabru wa taqsim ci usul mooy nga boole ay melo ba noppi nag di ko gëstu par benn benn ndax bii mën naa nekk wala bii mënta nekk ndax lii moo war a nangam masalan ci misaal fii aay bi ak aay ba nekk suurtu Mariama dañoo mottalante boo dee dem ci sin xëy sin xëy radiyallahu anhu dana ko misaal dana wax ne li ñuy wax asabru wa taqsim benn waaye daa wax ne man àjjana sa war a ma dafa am ab saxaaba bu mu yoreel xaalis saxaaba bi dikk di ko fayee ko si ko mu ne ko ah yowmal qiyaam de du du ma la fay du ma la fay la ko wax saxaaba bi ne ko yowmal maa ngi lay bàyyi sama borom ba yowmal qiyaam mu ne ko ah yowmal qiyaam fa laay ëppee xaalis la ëppee xaalis fa laay ëppee doo alquran ne afara ayta alladi kafara bi ayatina wa qala la utayanna maalan wala ba daa di koy laaj moom tam ñaari laaj attala al xayb est ce que moom daa yër xëy bu daa xam kumpa la ñëwagul ba xam ne moom ñooy am ay alala ci doom ca la bokk amit taxada inda arrahmani ahda wala lii mu wax da ci am couleur diggante mu borom aywa ñu xool ba xam ñaar yooyu ba xam dara wér na ci nit attala al xayb alquran ne wa ma kaana allahu li yutliakum ala xayb yàlla nekk ci ngir wan leen kumpa walakin laam jooju laamu juxud la wa kullu laamin baadahu ma kaana aw lam yakun falil juxudi falil juxudi baana wa ma kaana allahu li yutliakum ala alxayb walakin allah yajtabi bi rusuli man yacha del wax ne aalimul xaybi yàlla rek xam kumpa fala yuxiru ala xaybi ahada illa man irtada min rasulin te kii moom bokkul ci yonente yi kon boobu moom xam na ne du dëgg am ittaxada inda arrahmani ahada wala dafa am ko la dafa yàlla suñu borom nee ne inna allah la la inna allah la yanaalu ahdiya alzalimin la yanaalu ahdiya alzalimin te moom mi ko zalimu nii la bokk kon benn donga fi sos mooy bi am taquluna ala allahi ma la taalamu kon fenal yàlla donga fi sos loolu mooy lu mel ne yow ña waxoon ne bi leen la yàlla laaj ne am xuliqu min gayri cheyin am humul xaaliqun wax aay boobu yàgg naa la ko wax ne la maanaam jamta la ñetti mbir bi leen yàlla ne waaw ndax ñoom dañ leen bind ci lu dul dara ñoom dañoo jekk-jekk rek ne jëlañ kees wala sax ñoom ñoo doon bind seen bopp loolu ko am xel ku ne da ngay daal di xam ne maanaam man daan dañu wax ne aaya bi jamtal na ñetti mbir bu njëkk mooy imma annahum xalaqu anfusahum benn ñoom ñoo bind seen bopp te loolu moom xel mu neen d'accord ko nit ku ne ñum mu am ba noppi amal boppam kooku moom xel na ko imma annahum xalaqu wa imma annahum lam yuxlaqu min shay wala sax maanaam ñoom dañoo jekk-jekk rek ñëw addina ñu ne maanaam tabax bii daal li muy rëy rëy rëy rëy dañoo jekk-jekk rek gis ko loolu benn xel d'accord ko mu def benn am anna gayrahum huwa alladi xalaqahum kon keneen leen bind te mooy yàlla subhanahu wa taala dégg nga loolu la ñuy tuddee asabru wa taqsim nga jàpp ko ba keroog ngay àgg ci usulul jàng ndax mën la yomb te xaalu leen kon loolu dara wéru ci léegi daal suñu borom subhanahu wa taala jox nañu ay adilla yu leer ci ne kii moo mën a dem àjjana ñu jàpp ko bu baax a baax balaa axa kay balaa axa kay mbir mi néewut ne ni ngeen ko waxee la wax la joo xam ne dëgguwut waaye man képp koo xam ne kasaba dafa fàggu sayi atan aw ñaawteef man jooju nag maanaam mawsul la ñëppay ñëppay dugg ku mën a doon nag laa wax soo fàggee soo fàggoo sayya te itam sayyi'a boobu nakira la boo xam ne dafa ñëw fii siyaaq shart man di maa ngi jum shart yi la maanaam man faala kada falahu kada la maanaam an nakiratu fii siyaaq shart ba tey yufiidul umum nga jëlaale an nakiratu bu ñëwee ci ginnaaw ak shart dafay jëriñ ak umum fa in tanazaatum fii shay'in fa in tanazaatum fii shay'in fii shay'in jooju nga xam ne nakira la ñëw ci fa in jooju nga xam ne shart la day wane lu mën a doon te ngeen ko te ngeen ko juyoo ci rek delloo leen ko ci yàlla fa ruddoo ila la fa jooju mooy jawaab in kii tam jawaab bi mooy fa ulaayka jooju faa jooju dugg foofu képp koo xam ne fàggu nga sayi a dégg nga wa axaatat teeg bi ci moom xatiaatuhu ay ñaawteefam nga xam ne ñaawteefam yi dañ koo peeg ba mel ne ab xaait ab miir ni ñuy def ak kër noonu la ko ñaawteefam yi def na la wóor ne fa ulaayka ñooñee asxaabu naari ñooy waa sawara te yàlla nag ay waxam kenn mënu ko dindi hum ñoom xaaliduna way beel lañ fiyaa ci moom dégg nga su ko defee kon suñu borom subhanahu wa taala jéemut a wax sax naan leen li ngeen wax dëgg la mbaa du dëgg daa ñëw rek wax moom yi nga xam ne si moo moo waraam en tout cas ku fi nekk daal koo mën a doon xaggu say ñaawteef topp sa ay xatiaat ba mu wër la peeg la sa war a dag fa dugg moom waaw dag fa dugg walladina amma ñi nga xam ne amunu gëm nañu yàlla te gëm ga nga xam ne nag mooy gëm goo xam ne doo ko rax ci sa xol ak bokkaale ñu bàyyi ko xel baax alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te suñu gëm yàlla googu rëkkuñu ko zulm zulm sahaaba yi bañ ko déggee ba aay bi wàccee dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko amin naa man saliba mina zulm ndax am na ci ku mucc ci tooñ mu ne dee du tooñ googu de tooñ gii mooy nga Luqmaan doon wax doom nan ko yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim bokkaal yàlla tooñ gu rëy la gu- gu rëy rëy sax maanaam maanaam moo gën a rëy ci wetu sax bu la neexee jaam boo xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko bind min maa in mahin ci ndox moo xam ne mu doyadi la bàyyi ko ci góor mu ànd ak moom ci mbaaxam jëlee ko ci nutfa jëlee ko jëlee ko fa yóbbu ko ci alaqa jëlee ko fa yóbbu ko ci mudoxa dem ba yàgg mu nekk yax kefe muul bati ko jël yax yooyee wadde ko aw yàpp fa kasawna al idama lahman suma ansha'nahu xalqan axar tag boppam ne fa tabarakallahu ahsana xaaliqin nga dikk ba dikk xàmme yorom xel maanaam ba ngay ñëw addina indaale wu fi dara axrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum sama defal la dégg wala nopp ndax nopp kese doon dégg aw xas la ab do nopp dégg la la defal wala absaar defal la gis ko la ay uyun ay bëti kese yu ànd toog ci aw xas la ku la defal yi bët yoo xam ne gisu personne maa la defal yi bët kooku la bëgg xam wala ab taar ay gis lañ defal wala af ida defal na xol boo xam ne lu nu wax tamuy lu baax na mën ko cee capté ah loolu des na ko defal nit ba noppi nag mu wëlbati ko di wutal yàlla morom moo tax yàlla subhanahu wa taala wax aaya bu doy fa afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa jaalu lahu shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lam am tunabbi'unahu bima la ya'lam fi l ard am bi zahir min al qawl suñu borom nee na jëmm joo xam ne ku faggu lu bon ëllëg ci yow lay dellu si ku fàgg lu baax mu fay la ko ngeen di ko wutal ay suraka nga xam ne moom moo féetewoo def loolu moom mooy taxawee loolu aw ko mën oo qaayimun ala kulli nafsin bimaa kasabat moom moo féetewoo bépp bakkan boo xam ne si da ngaa fàgg lu baax mu fay la ko loo def loo fàgg tamit sawaab mu yóbbu dafa war a ku mel noonu ngeen di ko wutal ay suraka daa di wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag léegi gaa ñiy wut ay suraka nee leen nañ ma tuddal suraka yi xul sammuhu sammuhu mooy lan soo waxee na sa rajo bii kat dafa nuroo ak sama rajo ba da nga may wax sa rajo ba nu mel ba mu àgg ma xool ba xam li nga wax wér na mbir suñu borom nee na nañ ma leen tuddal rek wax ma ay qualité yu ñor yoo xam ne ndax dafa bokk sama qualité est ce que bind nañ asamaan bind nañu as bind nañu dara ndax bind nañu suuf déedéet ndax bind nañ ay nit déedéet ndax weñ wi gën a tuuti bind nañ ko déedéet la inna alladina tad'una min dunillahi la yaxluqu dubaban wala yajtami'u lahu weñ sax wax naa la boo jëloon ci ñoom dara naaw ca kaw maanaam rëcc na leen wa in yaslubuhumu dubabu shay'an la yastanqisuhu min da'fa talib wal matlub ma qadarullah haqqa li gaa ñu joxuñu yàlla dëgg dëgg ak ya nga xam ne moom la yelloo su mel noonu ndax lees na ko wutal leen damaa na nañ ma jox sa muum nañ ma tuddal seeni melo buñ ma ko tuddalee ba noppi nag ah ma xam ba xam su fekkee ne nag nanguñoo tudd melo yi ndax lu mel noonu boo ko laajee du ko nangu tudd ndax daa bind asamaan de la lay wax kon nag yéen yéen nit ñi yéen a ngi may waaj a xibaar ci sama nguur gi lu ma xamul am tu nabbi ono bi ma laa ya'lamu fil ard ndax man li ma xam mooy man yàlla ak samay jaam ngeen keree ci biir ci biir ci biir ñi nag ay suraka kon yéen a ngi may xibaar lu ma xamul nu ngi koy xibaar gaal lu ma xamul waaw xibaar yàlla ni ngi koy xibaar lu ma xamul ndax moom ay ay jaam la xam yonent bi alayhi salaatu salaam boo gën a màgg ci kaw suuf ñetti barab yi ko yàlla gën a fonk abdu la ko fa tudde ba fi jiitu mooy ba muy rañaan subhaanalladi asra bi abdihi moo gën a xam tur yi waaye waxul bi muhammad bi abdihi la wax ba ñu wàcc moom alquran wa in kuntu fii raybi mimma nazzalna ala abdina tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdi ba muy woo nit ñi jëme leen ci yàlla muy maqaamu bu tedd wa innahu lamma qaama abdullahi la wax jaamam ñëpp itam waskur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub lay wax ay yàlla kay ay ibadam la xam waji ña ko ca topp te ragal ko nag ñooñee maanaa yelloo nañ ak cofeel guñ leen di topp ngir jëm yàlla waaye nag buñ leen bokkaale ak yàlla la daloon nit yi Isa an nasaara ya ëllëg yowmal xiyaam suñu borom di di ko laaj Isa naan ko est ce que yaa wax nit ñi ne leen ittaxiduni wa ummiya ilaahayni min dunillah est ce que yaa leen wax ne nañ la jàpp yow ak sa ndey ñuy ñaari yàlla bàyyi fi yàlla mi leen bind moom laa tamit tontu subhanaka la wax yàlla sel wax ju bon jooju maanaam sellal naa la ko maa kun maa maa yakunu li an aqula maa laysa li bi xaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu taalamu maa fi nafsi wala alamu maa fi nafsi lañ ci itteel mooy ma qultu lahum illa ma amartani bihi lan ma digaloon dong laa leen wax te mooy an wabudullah ñu jaamu yàlla mi nga xam ne rabbi mooy sama borom wa rabbukum di seen borom su ma seen borom waxuma leen ne maay seen borom de maanaam day dafi nag nit boo nekkee ci barab luñ la yiñ lu ne te du dëgg mën koo weddi wa kuntu alayhim shahidan maa dumtu fiihim waaye ba nga ma faatee bala maa taw fete nii yaa fa defar yaa doon contre mbir ya kuntu anta raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in ñu ngi noonu nag in tu'azzimhum fa innahum ibaadu wa in taxfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim kon borom bi subhanahu wa taala bakkaar bi gën a rëy ci buñ koy def mooy bokkaale yàlla googu yi te bari na lool nag naa ko wax fukki yoon bari na lool waaw laa tushriku billahi ya ixwani fa innahu yuhdi ila niran dégg nga dégg nga addurru wa nafcu min arrahmani laysa min albidaani wassudaani dégg nga fa in taxaf aw tarju gayra allahi fa anta du fasahatin walaahi boo ragalee mbaa nga yaakaar lu dul yàlla da ngaa defe xel mu gàtt nga yor safaaha mooy borom xel mu woyof ci lëfu nga nekk itam fala taxaafuhum wa xaafuuni bu leen ragal nit ñi ragal leen ma man yàlla fala taxshawu naasa waxshaw ni ba ci ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla boo leen dee jéem a ragaloo dara sax da leen yokk ngëm yàlla alladina qaala lahum naasu inna naasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allah wa nicmal wakiil noonu li la ab jaam war a mel digganteem ak borom maanaam ulaika asxaabu naari hum fi walladina aamanu comme gëm yàlla ngi noonu gëm yàlla làmm na malaayika ya gëm téere ya gëm yonente ya gëm bis bu mujj ba wa amilu saalihaati ba noppi nag aha di jëf lu baax waaye ñu bëri liñ bëgg a def mooy gëm yàlla ak gëm moom ci xol la nekk rek ba noppi nag tëdd di nelaw déedéet wa amilu saalihaat di jëf lu baax di jëf lu baax saalihaat nag mooy loo xam ne yonente bi alayhi nee na lii lu baax la alxayru fi maxtaaru wal muxtaaru laa fi lladi nufuusakum taxtaaru yiw moom la baax moom mooy la yonente bi daan rek lu mu mën a doon boo ko tànnee di ko defal sa bopp te nekkul yonente bi la ko jàngal ëllëg ñu xam sifru doonga lay doon wa qadimnaa ilaa maa amilu min amalin fa jaalnaahu habaa'an mansuuraa waaw waalam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnatin fa laysa yaqa'u waaw jëf ju mën a doon lu mu rëy rëy bu tàbbee te wuuteeg sunna kenn du ko nangu walladina amanu wa amilu salihat kon jëf du baax ñaari sàtta ci daje mooy da nga koy def xaalisatan li wajhillah def ko ngir jëmi yàlla bul ko def ngir bëgg ca tagg bul ko def ngir bëgg ca maanaa looy def ci sa bopp def ko ngir jëmi yàlla rek beneen ba mooy na dëppoo ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg nga kon xam nañ ne ñi nar a texe la yawmal qiyaam mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla bay noppi di jëf lu baax walladina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna moo tax ma ne sart yàlla tër pour nit dem àjjana day wax dëgg ku ci yàlla dimbale dana baax lool ulaika ashabul janna ñooñu ñooy waa àjjana hum fiha xaalidun keneen ku wut waa àjjana yeneen yu bokk te yi yàlla wax nag bay ba nga wutub dalil maanaam foofu lañu taxaw